yow te fi nga faral France ñun dañuy nelaw dee ñu sóoraale waaye di moo ñu ne xojoo xojoo xojoo xojoo xojoo xojoo man kuy laax ngént bàyyi ñu xel. Eh, nga ne la. xoolal yaa ngi ni jiitaloo yaa ngi ni jiitaloo gis lii. de borom de fii war nañoo contrôler frontière yi de. ah ku jot dugg. dañ ko ubbi dugg dañ ko ubbi mel ne Rudamay. waa ah, gis nga la muy weer. mooy xale bi gis nga tuuma yi ji mu sol. waaw la muy weer nag. heure bii nga est weer ay heureusement sax man koor gerte dafa am ku may waral man moom ma koor yàqal kooru jàmbur nag. moom des ci weer bi moom bu soob yàlla gàmbi laa koy eggalee. si cee ngoos. treize heures nga di ko weer. kooku lu waa joxe ko. xaar yoo. aywa na sant. ii. waa kii grossesse su. am Sénégal ci boppam événement la ñuy bañ dégg bu ne màggal Touba yegg si na ñu yokk paas ni pomme de terre dafa manqué soble dafa manqué. màggal bu gàmm bu jotee. ñu yokkati paas yi. diggante Kaolack gii nga xamante ni 3000 francs paas na ko ñun la 7500 ñu tekk ci lan. waaw yow da baax bu mu demee ba yokk socc socc yi dañ jël juróom weeru koor ñu yokk socc cent franc wala femme bi nekk ci suñu biir nii mbuusu caagare ñaata ko doon jaay fukki dërëm. Mhm. léegi cent cinquante. loolu nii. Mm, moom moo taxit caagare mbaa ngi ma ne ay mbuusu engrais ma nga wow koŋ kenn jëndu ko kenn jëndu ko. mais am na ñoo xam ñàkk pexe ñàkk pexe tax ñuy jënd yooyu de. lu ma dal dem may dem ci ah. bi di jënd xëdd lu ma borom biti bi wax mbis mi dafa seer léegi noonu laa mujjee tëdd man ndox laa xëdd ni moo tax su may yëngu muy cocc laay def. comme mu yooyu sama yaram yëpp SDE la nekk cocc laay ah, sant yàlla comme SDE yokk ñu ndox rek sant. suukar fi mu ne nii yokk nañ ko yëg nga ko. ku yokk suukar. ii ah. kanaan yokk kanaan te kenn du ko. ah kooku tamit nit ñi dañu wax ak moom. loo koy. ah suuraale population bi waay. na loo ko waxee mu dóor la ko bañ nga tëdd. mbaatu sa sànni ñoo la mbaax loo xën ndox yaa ngi ci deux cent soixante six poitrine ay waj samba après demain waaw ah, de après demain soixante six parti sanga na FIFA day teg di ko tegoo waaye yow yow madame dasa nga maa xam yow je <laughs> suis lu ne lu ne lu ne. jaral nga maa joxe sama bakket man. léegi xaar ma génneel la sama soutien yi nga fóotal ma ko. mu ne. ngi la koy andi léegi nga fóotal ma ko ndax am na ñaar ñett yu tilimoon foofu ma jox la ko nga fóotal ma ko ongle li ma def moo tax. soutien ngoos. waaw ñaar la rek bëriwul. wala jaraluma ma la ko. <laughs> si ah? eh? jaral naa la ko wala. moo zipp zipp. déedéet ay soutien laa fi am parce que vraiment aw ma dara lu tilim fii xaar ma jox la soutien yi rek nga fóotal ma ko soo paree nga weeral ma ko ci ligne bi xaar ma andil la ko. xoolal damaa fàtte woon robe bi léegi laa dugg gis ne daa ci limoon tamit yóbbaaleel ma ko rek. sa robe la. sama robe la waaw moom laay fanaanoo. waaw beneen du ñëw. non jeex na lii rek la woon. tey dama am fóotkat bu bees. dugal ci vidéo yi. ah nga may defal lu baax doo ko wane. reetaanal sourire feteel ma gis ñaaw fetekat la nag <laughs> fete rek lay def <laughs> ku soxla leen. mu wooru. ah ah ne tëgg de. pour le corps. ne tëgg de dafa war a ah, wóor. yow yi ngay seetaan yow. ah da nga naan yow. mais man mii ah ki jënd connexion bi. man mii man sama téléphone mais yaa jënd connexion. Ah. taw bàyyi boo erreur amee nga di ma ko joxal léegi baaxul sànq léegi ngi neex ci yow neex ci man. Ah, mais mais mais mag bu jëm mu mu mu jëlu mu seetaanu tiktok waaw ah mu seetaanu Facebook mu seetaanu wat muy muy dàq xale bu góor. Eh, eh, voilà léegi dama lay laaj comme yow da nga am xam-xam dëgg-dëgg waa koñ bi kaay leen xool loolu day yàq xool wala day yàq xool. Eh, boobu baaxul boobu fecc la boobu musique la. waa koñ bi kaay leen xool mu fecc. baaxul am ko ren bëriwul. musique baaxul koñ bi kaay leen xool. yow te nga koo xool moo tax muy nar a yàqu. Ah, vous vous avez à changer ah. weeru kóoru weeru jéggulu. allah oh. oh. léegi nag comme comme waa koñ bi kaay leen xool day yàq koor. waa koñ bi kaay leen gëm kaay leen. gëmm leen. ñu gëmm ko waaye. gëmm ko waa koñ bi kaay leen gëmm. Oh, oh, bàkku bàkku nag ah! bàkku nag comme c'est comme ça. man dama waxu dëgg. mais comme c'est comme ça. man maa ngi dem. dëgg nañ la voilà. yow ku baax nga yow. man seet naa boo xam ne eh, eh, ku baax nga. ah eh? ah. ah. góor day am njëriñ la. ah waaw te mën a fóot. waaye kii laa daa baax. te waaye baax. <laughs> Adja fóotum koor daa metti ma def bu doon sama sago Adja. nga bàyyi ba ba ba xëdd. defal nii. fete baax fete ba plateau parce que moom gént rek la mën a doon ku ci bàyyil di doxaan naan loo bëgg mën naa la ko defal waxal li nga bëgg waxal li nga bëgg waxal kooku bàyyil di wax jigéen xaaral ma jóg tam ndax kër gi dafa mel ne ay jinne fi commencé di léegi woowal sa yaay appel vidéo kan mooy woo yaayam baa xoolal man duma sa morom di ba mu waxatee woowal sa yaay di nga xam ne xam nga yow dégg nga may tooñ koor la ñu nekk nag bugguma tooñ. bi sa biir laay tere baa ngi nii woo yaayam ki dem vidéo appel vidéo. waaw looy wax ma woowal sa yaay appel dem vidéo. man bu dugg ci boobu de bu dugg ci man. ak ak ak boobu. Eh, bu ah, man waxuma ak yow. ah, ah man waxul ak yow man waxul moo di àll koy. Eh, ku pata kaa ngi xuloog ku sew kii. tirage bi commencé eh, bu pata baa ngi xuloog paa bu sew bi. Eh, bu bàkku bu bàkku. yaa maire pata bi man man man maire pata. man ngay wax. eh bu bàkku. bi kooru la nu nekku yow yaa ngi man ba tey yaa ngi tooñu man man waxul dara. bu bàkku bàyyil man. bu bàkku. ah kon pare naa ci yow bu bàyyil man. Ah, man man kuy xeex koor. day xeex boo arme bi sax denc nañ seen arme ci koor bi. day xeex fii boo laaka rek day xeex yow xamuloo kii sax. yow kii moo neexu a fawal kaaw moo neex a fawal. kaaw a ngi woo yaayam appel vidéo. waaw ma ko waxatee ndokkal léegi ah. woowal ko yaay appel vidéo. kaaw baax mu ngi woo yaayam appel a ma yow. bii daay yow yàlla baax na yàlla baax na ñun bàyyi nañ ko waaw ah moom nag moom nag lu toll ni weeru koor muy takk ay fer. waaw ah déedéet eh, moom moo ko jëmutal moom lu toll feram la ay feram lu tax muy takk fer ci weeru koor. yaa ko xool weeru koor looy takkee fer. waaw yow sa buti lépp sa buti woor ko de kacang kacang laa takk fer di xeeñ parfum ci weeru koor. Eh, eh, <laughs> baax baax yow baax na rajo la sa maam cedd woon mooy ka fàtte woon naa <laughs> sa maam ah mënoon naan sangar <laughs> te maamu yi ak munoon nan sangat léegi rek la yàlla dimbali leen yéen dugal leen si affaire bi alhamdulilah sant yàlla rek mais munul ndox moom tooñ ma la nag kon xam jikku caddu bi dafaa dee ñëw si yow baax. su ma amoon sa numéro yaay dama koy wax appel vidéo. baax nee naa la bàyyil di wax appel vidéo sama yaay dinaa la bu dinaa la def lu bon de. sa yaay ngay def appel vidéo yaay ngay def appel vidéo sama yaay nga ko def appel vidéo audio whatsapp. mais ngay wax audio sama yaay ngay tebal audio baax sama yaay ngay tebal koo audio baax yow doo ko tebaat yow baax le vayan, no les hagan